sëñ Moubarak loo di économiste bu ñépp ràññee xam-xamam ci biir réew mi ak ci bitim réew doy na ci sëkk firnde tey jii mooy kiy xelal premier ministre di économiste ne moom moo koy xelal ci wàllu économie conseiller économique la bu le premier ministre Mahammed Abdallah Ben Abdallah Dionne kon kooku it ci weneen wàllu muy doomu daara di suñu doomu sëriñ ñun tim ndax ñun tim ci école wayjuram fa leen jàngé xam-xam muy doomu daara jo dafa jaar fa mu wara jaar ci jaarwaay yi ba nopi nak doga ubbe ko ci walu njàngale wala mu xam-xam mu bes ni tay ji yaakaar naa ne fu ñuy ci Sénégal xel man nako daj mom ñu defal li ñu la transformation professionnelle comme cadre d'émancipation pour les membres maanaam nag euh, concept bi concept bu bees la damay gënal bàyyi moom bu dikkee mu gën a leeral lan mooy la transformation professionnelle waaye li ci am solo mooy daayira yi seeni membre soxla nañ wàllu formation wàllu tàggat ba pakk-pakk yi nga xam ne moo leen mën a gaar ci liggéey ñu man ca dellusi bu baax a baax man koo gàttandu man koo taxaw bu baax a baax ak difficulté yi nu mën a mel yakarna naa ci lu mel euh, l'économiste Mubarak Lo wara a dikk. gis ne nit ñi ñu ngi yokk seen xam-xam seen jëfin seen manine da nga gis ne bâtiment yi ñi ngi gëna rafet yoon yi ñi ngi gëna bax euh technologie mi ngi gëna bari ci réew moomu tamit donc développement loolu la développement ni ko tubaab di waxe mooy croissance ak transformation il faut nga boole ñaar yi ndax da nga gis dëkk boo xam ne dana am pétrole euh, xaalisam di yokk waaye tant que amul transformation mooy di am ay industrie di am technologie duñ ko boole ci dëkk développé yi loolu mooy transformation transformation nag ni mu amee ci réew noonu la amee ci société noonu la amee ci nit ñi euh, soo gisee dëkk di développé nit ñi ci seen bopp da ngay gis ne ñi ngi développé nit ñi ci seen bopp ñi nga am transformation am na benn euh, économiste sax boo xam ne développement ci bop rek la nek su nit ñi seen bop développer rek réew mi lolu euh, da fay wax ne réew mu bëgg développer il faut citoyens yi am ay valeurs yo xam mom moy nek ci ñom ben bi moy bëgg liggéey ñaarel bi teggin muy discipline ñetteel bi du ne lu ñu yor rek daal di koy dépenser mooy il faut ñu def épargne ñeenteel bi il faut ñu bëgg xam-xam juróomeen bi il faut ñu jub loolu ay valeur la yoo xam ne dëkk bu ko am rek day gaaw a développé te amul benn dëkk bu ndóol mu dem ba am doole te jaarul ci lii ndax xoo xoolee Sénégal année 1960 moo Corée du Sud Sénégal a tane woon Corée du Sud waaye fi ñu toll soo demee kore daanaka Corée mën naa dimbali Sénégal loolu li ko indi mooy coréen ci seen bopp ñoo futteeku liggéey defar seen bopp daf transformation boobu ba ma ne transformer seen réew ndax am réew moom kenn mënu cee loxo nit ñi ñooy réew mi su nit ñi defaroo rek incha allah société bi daal di defaru te alxuraan sax wax na auzu billahi min asheytan rajim inna allaha la yuxayyiru ma bi qawmin hatta yuxayyiru ma bi anfusihim donc fu fu nit ñi soppeekuwul rek réew mi mënta soppeeku ñaari ñoo ànd loolu mooy mbir mi njëkk ñaareel bi islam ci boppam moom moo njëkk a ñaax jullit bi ci transformation professionnel ndax euh, même soo jëlee devise u fédération bi muy euh, ngëm mooy la foi droiture mooy jub ak travail muy liggéey ñett yooyu daanaka mën nga ko méngale ak imaan islaam ak ihsaan ndax bu njëkk bi moom jub gi mooy la foi mooy al iman soo jëlee djub gi moy droiture kooku islam ak ihsan la bolé so jélé liggéey bi man nga ko duggal tamit ci l'ihsan ndax man nga liggéey pour ëlëk man nga liggéey tamit pour aduna bi ndax julit liko yàlla sante moy mu liggéeyal la aduna riggéeyal الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقل تمت ربنا آتنا في الدنيا حسنة ñaar ñi la boole ndax am na ñoo xam ne suñuy ñaan ñoom rek dañ naan rabbana atina fi dunya hasana daal di ci yem donc jullit bi comme ni ko yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa sallam waxe dafa war a liggéeyal àdduna mel ne du jóge ci àdduna ba faw donc jullit moomul yaafus jullit dafa war a farlu yaamal li dunyaaka كأنك لا تموت أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا دونك جوليت بموي داي بولي نياري توجور داي بولي فولال دا نان خانا كي الاخره تاخو كو جوك جوليت بي مو ورا گنا بڬ خالص نلير ناني جوليت بي مو ورا گنا بڬ خم خم lépp lu ñu tudd rek julit bi moko wara gëna bëgg nit ñi ci lu baax te dagan waye da ci boole ngëm boole ci lépp lu mi def da ci boole ngëm ndax xale bi doon jàng léegi alquran ci suratul baqara dafa wax alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ba pare teg ci suma la الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجر عند ربهم نيغا خامن يالا ماينا لين خالص نيوكاي ديبانسي تي يونو وباخ يالا دلين ديك اي تيابا يروي ري ميم نيغا خامن داني جيهات تي سين دوله اك نيغا خامن داني جيهات تي سين خالص ньоñ ñep dañ leena boole ne ñoñ ñep inshallah Euh, ëllëg duñu tiit yàlla dana leen boole may leen lim leen di may kon nag jullit bi wut wut alal dagal na loo xam ne islaam nangu na ko waaye na nekk alal joo xam ne soo koy wut danga cee jublu euh, def ci lu baax mooy dimbali ci nit ñi dimbali ci sa njaboot am na boroom xam-xam yu bari yu dem ba ne liggéey ci boppam ci jaamu yàlla la bokk nim ci bokke mooy su fekkee ne li ngay liggéey dangay liggéey pour man cee yor sa njaboot dangay liggéey pour dimbali ci nit ñi loolu ci jaamu yàlla bokk yonent yàlla boo man di jël bi yàlla tàmbalee yon yób yónni yonent yi bépp boo ci jël danaan liggéey Seydina Adama da daan bay Seydina Nuux menuisier la Seydina Idris tailleur la woon danaan ñaw Seydina Moussa danaan sàmm naa Muhammad da daan sàmm même nekkoon nañu jël ko di ko fay te yonent bi yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki mënta lekk lu gën li nga xam ne ci ñaxam la jóge nee na naa Daawuda lépp lu mas a lekk ci ñaxam la jóge donc jullit bi amul droit Euh, toog rek dafa war di liggéey mas nañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne dafa nekk ca àll ba di di woor di julli di def ay naafila waaye bokkul ak nit ñi dara liggéeyul te daanaka jëriñul kenn kooku ak ki nga xam ne mu ngi ci biir dëkk bi xëy na la kee di naafila naafilawu ko la kee di woor wóoru ko donte mi ngi def farata yi ak yenn naafila yi mu ne ñaar ñi ki gën mu ne ki toog ci biir nit ñi moo leen moo moo ko gën ki nga xam ne day toog di jubbanti di dimbalee moo tax sax mu ne ci benn xadis xayrakum anfa'ukum linnaas ki gën ci mooy ki gën a jariñ nit ñi citoyenneté bi ngeen di wax daanaka soo ko tënkee ci xadis boobu rek doyoon xayrukum anfa'ukum linnaas ki gën ci yéen mooy ki ëpp njariñ ci nit ñi xadis tamit nee na nga bëggal sa moroom li nga bëggal sa bopp tamit euh, loolu soo ko ci boolee tamit dana la wan ne citoyenneté lu war la ci jullit bi alxuraan tamit nee na bu leen fàtte di defante lu baax wala tansawul fadla baynakum loolu yëpp pour wan la ne xam nga alxuraan ak xadis daanaka soo ko jàngee nga duggal ko sa biir to ngay lire dara lu la nit andil lo xam ba pare la man bama tambale jàng alxuraan ak hadith philosophie dama may romb ni rek waye ci deug deug meunatuma wax luma jari ndax lama soxla lépp ma nga ci biir alxuraan yàlla nee ma faratna fil kitab min shay lépp lu julit bi soxla ci ay numuy muy comporté woo ci société bi mi ngi ci biir alxuraan mi ngi ci biir xadis doy na sëkk donc euh, liggéey jullit bi mooy liggéeykat dëgg mooy ki nga xam ne dafa war a njàmbaar ba liggéey ba yóbbu société fu kawe yor njabootam di dimbali nit ñi mooy ki nga xam ne tamit suy liggéey da ciy def fulla bu ci boole caaxaan ndax loolu tamit respecter sa contrat la yow suñ la jëlee ci entreprise salaire biñ lay fay war nga joxe ci sa liggéey luy wane ne mérité nga salaire bi su fekkee commerçant nga da nga ciy boole éthique mooy doo def riba doo jaay lu baaxul ndax bari na ci alxuraan fi alxuraan fu ñu yàlla di wax wasinu bil qistaasil mustaqim bari na ak fu bari daal foo xam ne même sooy peser dalay wax na nga peser lu mat yenn saay ma dem di jënd ci nit ma ne ko jaay ma banaana mu jaay ma xëy na def 900 grammes bëgg bëgg maa jox ma ne ko waaw sëñ bi matul mu ne ma su ma yokkee damay perte ma ne ko léegi man nga bëgg ma perte donc jaaykat bi na nangu perte tuuti moo gën mu jaay lu matul ki nga xam ne tamit day jàngale na xam ne ci yoonu yàlla la nekk ni zakat bi nga xam ne danga koy génne sa poos di ci dimbali nit ñi xam-xam bi nga leen di jox zakat la li ñuy wax zakatul ilmi mooy zakatu xam-xam ndekete yoo am na yonent bi sallallahu alayhi wa mas naa yoon yónni ku tudd Muaz gouverneur ci benn région ne ko soo demee benn nit

képp koo xam ne yaa ngi jëriñ nit ñi xamal ne yaa ngi ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc pour ma tënk ci point boobu mooy ne jullit bi mooy ki nga xam ne daal lépp loo laal moo fa war a gën ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def lépp lu ñu wax ci lu baax ñu ne yahud yi ñoo koy def ñu ne ñoo leen ci gën a yey donc yonent bi ku ku ku bëggoon lu baax la même daana wax allahu tayyibun yuhibbul tayyib Euh, lu baax la bëgg lu rafet la bëgg njàmbaare la bëgg euh, jullit normalement jullit yëpp dañu waroon développé ndax gàcce la ci yonent bi su dajeeg nit ñi ëllëg ki si biir ñu ne ko ñun kat euh, xanaa ñu naan kaanu mustadaan fi na fi lard <laughs> mooy ñu ne ñun dañoo faibloon faiblesse googu war naa jóg ci réewu jullit yi nañu takku nga xam ne ñooy nekk ci kanam donc citoyen bi war na defar boppam pour mën a jariñ réewam daara ji nag daayira yi lan la seen rôle ci loolu soo analyser réew mi ñu nekk temps yu njëkk yi parti politique yi daanañ former xale yi ndax euh, soo daan dem ci lycée yi daanañ fi former xale yi doonte daayira yi amoon na waaye jamono ji ni ma ko gisee su daayira amul woon réew mi yàqu donc ñëpp dañu war a rafetlu liggéeyu daara yi daayira yi daayira yi mën naa wax ne suñ bëggee changement social ci réew mi mooy fexe ba nit ñi valeur yi ma doon tudd léegi ñu ñu jël ko ci daayira yi mën nañ ci jaar ba am ko ci ndax ci biir daayre yi gis ngeen ne ñi ngi nii di def conférence nit ñi xamante nañ mën nañoo waxante ku ne dafa def sa sa moroom nga def ko comme sa bopp motax ma gëm ne daayira mën na nekk fi nga xam ne transformation sociale du Sénégal fi lay jaar ndax ñeneen ñu ko def dañoo bëreetul ndax daanaka am doy na waar daal ci gàtt daayira tamit ñi ci bokk yaakaar naa fàllu Fallou sa doon na ko wax léegi danañ mën a ñaaxante seen biir ndax alxuraan am na fu muy wax am na ku ko tudd ci batalo joola euh, wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa mënoo bokk ci société nga gis mbir yi di bëgg a daanu comme gaal gi di bëgg a daanu nga ne man kat duma ci jéem dara ndax man defuma lu tax gaal gi daanu donc sa exposé bi nga def wala sëñ Mbàkke yéen ñëpp li mu wax daayira nag mooy fi nga xam ne nit ñi duñu seetaan ku xasa bokk ci ñoom rek danañ fexe ba jàppale la ba nga raw ëllëg ci sibir loolu benn rôle la boo xam ne bu rëy rëy la bu bu daayira bi mën a rôle mën a joué ñaareel bi tamit daayira bi mën na former nit ki ndax soo jëlee ñu bari ci Sénégal amuñu chance jàng wala seen jàng soriwul waaye daayira mën na leen a jàppale ba ñu defaraat seen bopp loolooy transformation professionnelle transformation professionnelle mën ngaa jël baykat bi baykat bi ñetti weer lay bay ci at su ko defee su jëndee semence am su bayee ba pare am cent mille man bi ma ko calculer un hectare daanaka cent mille nga ci mën a génne soo ci génnee say frais génnee ci li ngay dunde ragal naa soo bayee ba pare dara du ne sa poos nga war a yor léegi juróom-ñeenti weer yoo xam ne yoroo dara foofu la transformation amee solo daayira man na fexe ba jàppale nit ki ba indil ko anam yoo xam ne su bayee ba pare dana mën a am beneen activité mën na ko conseiller tamit ba muy mbay mbayum noor ndax euh, suñ dëkk yi ngeen di gis village yi soo gasonub teen ab teen laa wax waxuma forage teen bu baax man nga fexe ba dëkk bi li mu soxla ci ay lujum lépp di jóge ci teen boobu euh, donc loolu liggéey la boo xam ne daayira ñi ci bokk mën nañ ci mën nañ ci bokk mën nañ ci liggéey mën na fexe tamit ba ñi nga xam ne ñoo bokk ci biir daayira bi di liggéey créer ay GIE danaa ñëw léegi ci fédération moom lay mujjee ndax li may wax ni yépp daanaka mi ngi ci biir fédération daayira bi tamit dana rëy goo xam ne suñu songee mbir lu mu rëy rëy mën nañ ko daan ndax bi sëñ Mbàkke wax na ko léegi daayira Maam Jaara yi 60 membre membres 60 000 membres seen doole bari na lool

dana joxe ay semence wala boog soo demee ci ci région yi danañ organiser wu pour am semence danañ organiser wu pour bay ay parcelles yoo xam ne ñoom ñëpp ay bokk di ci bay daayira bi dana def alphabétisation am na jigéen yoo xam ne yu bari jàngal nañ leen daayira bi am nay école yaakaar naa sëñ Mourtala Diop mi jàngale jàkkaarloog man nga xam ne sama bàyyee ko jàngal nekk na ci ecole yi mi ngi may ree <laughs> ba muy ñëw kër ga man booba ab liir la waaw waaye ci njëkk jaar ci kër gi sëñ ab laxat mi moom dama dama dégg Mauritanie dañuy wax Cheikh Sadib Cheikh saadibu ci arab mooy Cheikh Saadu Abihi mooy ki nga xam ne doom la joo xam ne baay bi daa kontaan ci moom moom sëñ abdoulahad bi mooy abdoulahad saadu manaarul huda moom mooy ki nga xam ne day jox mbégte manaarul daal ci xam-xamam ak ci taxawaay donc daayira yi mën na def éducation mën na def alphabétisation te daayira fédération mi ngi koy def fédération bi tamit mi ngi def entrepreneuriat am na huilerie liy segal gerte diwlinu gerte Taïf tamit ragal na ñu bari ci dakaar suñ lekkee cere Taïf la jóge ndax cere ja ñuy lekk mel na ne mënuñu ko am Dakar action sociale yi tamit fédération mi ngi koy def léegi nag euh, li may mujje mooy lan la fédération bi mën a def pour gën a yokk liggéey bi muy def ci transformation professionnelle ñi nga xam ne ñoo ne ci biir

ñi bok ci fédération bi dana ci jëriñ ñi bok ci Touba ak ñi bok ci Sénégal yépp centre bobu war na dem sax bay wër réew mi di def li ñuy wax ay formation délocalisée yenn saay mu dem Louga dem fatik dem Kaffrine dem Kaolack fu ne mu def fa formation ndax jamono day dox jot na fiñ ñu toll ñu ñu créer centre de formation boobu moom la mooy proposition bi may njëkk a def ñaareel bi neewoon naa leen léegi mbayum nawet mënta yor baykat bi daayira bi mën na encourager membre am yi ñuy def mbayum noor ak tamit suñuy bay di bay mbay moo xam ne moo ëpp lim lay jox xam nga soo jëloon un hectare tomate un hectare mën na laa jox 30 millions CFA trent millions hectare gerte 150 mille dëkk yi la gën a développé soo demee ci Asie foofu lañ ñu mën a ñun ñi ñoom la ñuy bay day nekk produit yoo xam ne day am xaalis bu bëree bëree bëri euh, daayira bi tamit mën na jàppale membre yi ku bay ba pare manadaf transformation manadaf nga artisanat mën nga def sax yeneen donc lolo, so so de jàng ndóol man dem naa dëkk bu tudd Malaisie bañ fa de dañoo amoon benn programme di jang àdduna bi nan la ñuy xeexee ndóol de dëkk yi xeex toujours lii day nekk ci programme ba nit ki nga yokk productivité productivité mooy li muy génnee ci at mi na yokk waaye xam nga liggéey at mi yëpp cent cinquante mille euh, te génne ko frais yi ragal naa sunu ndóol foofu la jóge donc il faut ñu dem ba baykat bi mën a nekk millionnaire te mën na ko boobu nag day laaj formation ak ay conseils beneen point bi mooy nan la ñuy fexee ba entrepreneuriat euh, dugg ci biir fédération bi gën a bari loolu nag day laaj ñu professionnaliser ko il faut ñu taxawal benn centre waxoon tudd naa léegi benn centre de formation professionnelle mais il faut ñu am benn centre d'appui boo xam ne ku bëggoon a ñëw defar projet da ngay ñëw ñoom ñoo lay defaral lépp ci ayib bu gaaw euh, fan yi rek maa ngi doon waxtaan ak ay indien yo savez, Dakar lañ nek mané len dama bëgg ñu Touba gën defal ñu lu mat 40 projets wala 50 yo xam du cher 3 millions 1 million 500 000 ku nek ak vous na yi dem ba 200 millions sax so bëggé parce que so bëggone usine cimenterie bu ndaw xeyna ci 200 millions rek man nga ko ci tambali so bëggone usine diwlin. Euh, ci 100 millions man nga ci am bu am ayib euh, waxuma sax euh, yi mais usine bu na 10 000 litres par jour donc un yi projet yi mel noonu mënoon ñëw defal ko fédération Il def lu 40 projets 50 projets 100 projets su ko defee su magal gi amaté xeyna ñaari fan bala lool wala ci suñ né suba la comme aljuma ji ñu am la ñuy wax foire de l'entrepreneuriat bo xam dañuy jël bâche bi euh ñu ñëw taxawal projet yi ñu fi mëna def yépp su ko defee euh, ku ne mëna a ñëw def benn projet suñu bëggee transformation dëkk il faut ñu dugg ci loolu xam nga dëkk bu mel ne Inde bi bi gandi ñëwee gandi dafa ne benn indien dootu bay wëtteenam génné ko toolam jaay ko noonu mu fexe ba kuy bay wëttéen da nga am benn machine bu ndaw sa biir tool yow yaay njëkk a transformé wëttéen bi soo ko transformé xëy na loo daan jaayee 100 nga mën ko jaayee 200 300 400 donc ñun euh, ci biir fédération bi loolu loo xam ne lu ñu mën a defar ñaareel bi aussi soo amee doole da nga koy wane ndax tamit fédération bi ragal naa soo jëlee entrepreneur yi fi nekk kenn ëpp leen doole ci Sénégal war nañoo mën a am sax wilaya entrepreneur man dama koy proposer ñu am wilaya entrepreneur ndax da nga dégg ñuy créer ay club des investisseurs club des industriels ñi nekk ay grand entrepreneur ci fédération bi nañu dajaloo am benn euh, wilaya entrepreneur su ko defee Touba war na mën a am li ñuy wax zone économique special te man balaa may wax dara damay liggéey ba pare doo koy wax am na ci ñu ma ci waxal boroomi doole yu ne bitim réew euh, biig biig rek seen dëkk laa ne woon du ma wax dëkk bi nag waaye ñooña d'accord nañ

waaye soo dee xool lépp day jóge yeneen gox yi wala mu jóge bitim réew war nañ man mën a dem ba Touba lu bari ci biir Touba lañ koy liggéeye wala li jege Touba mas naa cee waxtaan ak sëñ Mbàkke Soxna Lo rahmatullah alayhi ba ko doon wax tayif suuf si nekk tayif lu bari mën na ko jox Touba ci ay légumes am na benn bis ma ànd ak Cheikh Mbacke juuf ci wilaya jeune la bokk ñu dem Diourbel mu yóbbu ma ci toolu sëñ Cheikh tool yooyu rek suñ ko liggéeyoon tamit suuf su nangu la mën nañ fa bay bayu noor mën na liggéey di jox Touba lu bëree bëri dëkk sooy génn tuuba am na dëkk bu tudd Ngaabu ci temps wu sëñ Touba radiyallahu ay lujum lu ne dafa daan jóge lu ne dafa daan jóge ci lujum man mi di wax ak yéen sax jënd naa fa terrain te incha allah bëgg naa fa def lujum yooyu pour wan wan ne ndax samay maam dañ fa nekk pour wane ne mën na nekk donc maa ngi ñaax fédération bi tuddoon naa léegi zone industrielle boo xam ne état mën na ko jox statut zone économique spéciale ndax euh, am nañ ko Diamniadio Nous ko jass amna quatrième zone économique spéciale du Sénégal Té na fédération bi porté projet bi té amna partenaire yu nango liggéey ak yeen su terrain bi terrain bi 50 euh, hectares 100 hectares su avons 100 hectares Nous gën ko comité am aussi ay agropole Taïf mën naa am agropole toolu sëñ Cheikh Gaynde Fatma rahmatullah alayhi yi nekk Jurbel mën na nekk agropole feneen mën na nekk agropole mën nañu dem sax fii fi nga xam ne fa la daayira yi nekk ci yeneen région yi ñu am agropole ndax champ communautaire yi ngeen di def da ngeen di am ku ne day bay sa tool waaye dafa am fu ngeen daje di di bay yooyu yëpp war ngeen a mën a jàppante ba ba mën a nekk agropol bi may tudd donc pour gàttal daal lii mooy li nga xam ne loolu laa bëggoon a wax di gën a firndeel ne jullit dafa war a liggéey àddunaam ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe mel ne du fi mas a jóge donc nañu nañu ëpp xaalis tubaab yi tubaab yi bu ñu gën a bëgg xaalis waaye ñun liñ ci yéene moo wuute ñun dañ koo wut pour jàmm jàppale ci nit ñi pour dimbali ci nit ñi loolu daal mooy li ma bëggoon a wax di leen gën a di leen wax tamit ne alxuraan ci barab yu bari bëgg na nit ki liggéey ndax euh, ci suratul jumaa nee na sax soo jullee ba pare waawaay demal liggéey iza qudiyati salaatu fantashiru fi l-ard wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kasiran xëy na foofu lañu wuteeg gaay moom liggéeyal waaye sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha